La sécurité privée du Sénégal traverse une crise socio-professionnelle par manque de formateurs confirmés, ce qui a un impact très négatif sur la qualité des apprenants. Ces derniers, initialement mal formés, ont été beaucoup plus désorganisés en raison du manque de formateurs avérés. Chers amis, l'insécurité d'aujourd'hui a fait de la protection rapprochée un sujet d'actualité. La presse écrite, le cinéma la radio, tout le monde en parle, même la population, mais rarement en connaissance de cause. Le terme de garde du corps est tout autre chose que ce qu'on pourrait intuitivement poser. Car c'est avec de solides connaissances, un comportement nettement défini où se situe son action. La protection rapprochée n'autorise ni amateurisme ni improvisation. Mais comme a l'habitude de le dire notre mentor, Maître Wad, l'international, l'infatigable, le monument, Maître Wad, ça doit être pro, ça doit être bien pensé, bien réfléchi et très bien organisé. Car la protection rapprochée, c'est un dispositif comprenant un nombre d'éléments appelés garde qui se déploie discrètement autour d'une autorité pour la sauvegarde de son intégrité physique et morale, de sa liberté et de son honneur. Serge Jamy, aujourd'hui nous sommes ici à Thiès, à Sop, toujours dans ce rôle de sensibilisation pour les élections, raison pour laquelle nous avons organisé des séminaires avec comme thème la sécurité privée du Sénégal face aux enjeux électoraux. Nous avons un séminaire qui vraiment un programme am solo li programme c'est quoi le GDC lan moo top sécurité rapprochée la protection rapprochée Le tu top. la gestion de stress en matière de protection rapprochée luñ les droits et devoirs de l'agent de protection rapprochée la légitime défense de nous, la gestion du bureau de vote à qui ak notre mentor maître Ward de la proposé Nous yi bu weesoo loolu séminaire pour magal vraiment préparer euh, la sensibilisation de l'élection. Nous avons yi le commandant adjoint Sané Nous représenter

vraiment lui aussi qui est un, instructeur en, intervention, en professionnel, instructeur et coordinateur en protection rapprochée des hautes personnalités. vous allez voir que ASWAPS, mon FINEC, mon représente la sécurité privée, privée tatay na ko découvrir dina confirmer l'euro. Top leen La c'est euh, l'association sénégalaise des formateurs privés professionnels au métier de sécurité et de sûreté. Aujourd'hui, nous sommes là pour euh, la première journée du séminaire euh, qui nous a donné, en tout cas qui nous a fait l'honneur d'avoir, de, recueillir en tout cas, ou bien d'accueillir même les géants de la sécurité privée, de la sécurité privée, mais aussi de la sécurité publique. tout simplement afin de faire une euh, une émission, d'accord, je dirais même, comment dirais-je, euh, d'organiser en tout cas une cérémonie, un événement de taille, excusez-moi, euh, qui parlerait en tout cas sur la sécurité privée. Sinon, ce que je veux dire, parce que c'est pas, si je ne me trompe pas, c'est ma deuxième fois, mais nous petit séminaire. La fois passée, c'était à Dakar. Et j'ai dit que ça a été parce que je suis venu à Dakar. Wow. as vraiment de di association bi nga xamante ni pour man je dis que ne dafa yéex a jóg sax waaw njëriñ bi ma ci gis si turu ma ko wax parce que mu ko nee wax bëgg ngoon du ma ko jeexal. ñu ne euh, da nga wax kii moom ak asfob ba géej gi des walaat après man ma naan valaat bi voilà vraiment dañu kontaan ci li nga xamante ni bi xam-xam bi fi génn comme ni nga ko waxee xam-xam amul limite lu ne am na limite ba mu des xam-xam donc euh, en tout cas lii moom mbégte te incha allah

donc moo tax tey ñu jóge Darou si ñëw xam nga gis nañ fi suñu ay collègues yoo xam ni fenn fu nekk lañ jógee ci réew mi ñëw fi tey. waaw ñun ñu ngi jógee ba Darou Mousty ndax vraiment lii dafa neex fu ne raison yi ku ne jóge nañ fa ku ne jóge na ñëw ngir leen yokk xam-xam lii moom dañuy ñaan yàlla moo gën a jëm kanam ndax lii suñu arrangement la ndax BG yi bari dañuy wàcc si terrain bi xamante wuñ xeex bee xuloo bi comme lu mel nii rek moo fi mën a jëlee ndax ñu ñu desee fi yëpp c'est la famille ñun ñëpp benn lañ kon dañuy sant yàlla di leen ñaanal même yéen nit wax dëgg yàlla vraiment mention spéciale ndax xam nga ken demul ngeen des yéen mënu leen si ñàkk kon it dañ leen war di ñaanal bu baax a baax. vraiment vraiment man tey dama kontaan quoi parce que tey soo xoolee xam-xam xam-xam xam moo wàcc fii par rapport ak euh, ñun sécurité bi ñu nekk doon ko dund. tey jii lu bëree baree baree baree bëri jàngat nañ ko ci salle bi tey vraiment ay ay ay li ma a waxee ñi fi daje tey bibliothèque la vraiment loo nga xamante ni tey jii soo ko doon sàkku da ngay fay xaalis bu bëree bëri tey jii ñu ñëw ñu yombalal nu ko nii ba pare sotti ñu xam-xam loolu sant yàlla la vraiment. loolu la ñuy ñaan yàlla ñun ñëpp mu ñëw teewoon jàll ngaay ñun ñëpp ñu sàkku ci xam-xam parce que moo tax ñu bàyyi suñu yite ñëw ngir doxal loolu tey ndax ku ne am nga foo mënoon dem ay milliards mënu ko fay ndax jaar nañu fu ne gis nañ lu ne mais tey li ñu dégg fii nii moo ñu gën a permettre ñu mën a gën a yokk suñu niveau ci moo leen fu ñu mën a dem tax benn autorité du ñu mën a yab du ñu mën a dépassé tamit na autorité bu ñu dem tamit bu ñu jàkkaarloo dina la mën a jox cër bu baax ci kaw nga jox ñu cër bu baax. li nga xamante ni maanaam maa ngi ñëw fekk ñu ñëw fekk si fii nii si biir HFOF muy loo xamante ni dañ ko daan dégg di ko séentu Euh, fu nekk mu nekk loo xamante ni tey jii boo si doon dugg mën nga si diire ay xaalis bu bëree bare bëri pour mën koo def tey nag ñu ñëw nii euh, ñu yombal ñu ko ba mën ñu def loo xam ne sotti suñu loo xamante ni yokku loo xamante ni da nga naan sa mosoo jaar daanaka boo ñëwee danga naan maa ngi soog a defaat formation ndax li nga fiy soog gis loolu rek ngay mën a wax te bokk na si li tax ma gën leen naw muy cadre social bi parce que raar na war a bari raar na nit ñoo gis ñu koy def man benn ak nit rek benn daje rek muy association HFOF rek ngay gis ñu def loo xamante ni yow da lay yéem si surtout si wàllu cadre jàngale bi da lay yéem ba yow da ngay yéemu sax sa jëm bopp. waaw sotti si loo xamante ni tey tax na élection yi dina tax ñun gën a mën a xam suñu taxawaay gën a mën a xam ni ñuy doxalee gën a mën a xam tamit lu ñuy dundee ak ak euh, envers les autres. kii ni social bi nga xamante ni moom la HFOF di def doon loo xamante ni Euh, lu rafet la dal parce que tay ji ni waxuma la séminaire mais dang dan dem formation euh di féré ben xaliss bo xamanteni mën na né xam xam bob sax doko fa jëlé ci li ngay féré ci xaliss parce que dañ lay comme lim doon expliquer sank système de militaire wala ay application yo xamanteni parce que di nga servir actif de protection rapprochée ba jéxal té doko mësse jouer sur le terrain lool bokku na ci li gën am solo tey jii nii waxuma la formation mais soo ñëwee séminaire euh, ASFOF da ngay gis ko maanaam débutant ni mu lay démarrer les lettres alphabet ba mu jeex da ngay gis que ni dafa mel ni yaa ngi soog a ñëw di def formation boo xamante ni te da ngay doon gaa boo xamante ni da ngay indaale euh, kii nii carte spéciale lépp mais daal kontaan nañ daal. Thiès ASFOF moo ma yëkkati ndaxte li ma fi déggoon dafa dal sama xel j'étais seul ma jóge woon Saint-Louis. tay nak ma and ak sama tim pour ñomit ñu am gis gis am deg deg li nga xamné ci mom la amon ci li nga xamné ci moy le professeur Ndour Wadl mu nek ko xamné dafa ñew pour innover dafa ñew pour yaatal li nga xamné dañ ci moy la sécurité privée kenn ku nek xam sa limite ci métier bi ak nan nga koy défé ak fan nga koy défé lolou wax deug yalla bi mu duggé sama nopp ba légui dama gëna accrocher dama gëna japp donté métier bi def nañ ci presque 20 ans di exercer métier bi fele à Saint-Louis ñu xam ñu ci nak bu baax baax and ak bép VIP bo xamanteni ci nek nga Saint Louis kon dañ war toujours di mettre à jour li nga xamanteni ci moy suñu ay carte professionnelle li nga xamanteni moy suñu diplôme li nga xamanteni moy suñu savoir parce que xam nañu né euh li nga xamanteni moy métier da fay erroné da na toll fo xamanteni ci day laaj ñu joññanti ka yëkëti wat ka te maître ndour wad mi ngi koy def ak wa arsops ak équipe bi mu yoré motax ñun ñi nga xamanteni ñoo jëge saint louis ak sama ak sama sama sama sama classe bi ah wax deug yalla euh, suñu démé tay ba ñëw fi taxaw aussi momit def na ci liggéey bu am solo waaw muy nabi waaw momit mi ngi lugo di def limi def ñun itim ñi ngi saint louis di def li ñi def te ñi ngi len di ñi ngi ñaan yalla un de ces jours

waaye ko ñu ku ñu ni ko formé ñu ne armation nga def wala yàgg nga si métier bi mais gën yàgg gën sañ dëgg la mais itam métier bi nekkul métier wax dañ koy tâtonner comme ni ko Cheikh Cheikh ñaar boo xam A plus A wala nga ne 1 plus 2 wala mu am ay chiffres et des yoo xamante ni si dafay répondre norme te met wax dëgg yàlla Ndour Wade mi ngi koy def. si mën na am am na ñoo xam ne ñu ngi fi nekk ay garde corps te ñi ñu dëkkal xamuñu que loolu la ñuy liggéey parce que discrétion bu ñu àndal moo tax mais des fois am yoo xam ne

fii Thiès euh, commandant yi waa pour commissariat bu central bu Thiès euh, maire bi voilà le ministre euh, Pape Pape Pape Amadou Ndiaye ñoom ñëpp jaar fii ñëw sagal la fii ci cees mais Fatou lan nga yëg tey ak waxuma la nag waa sécurité ñi ñëw ñëpp waa Kolda Tamba waa cees jurbel ñëpp ñëw fekk si la fii lan nga yëg tey personnellement yow.

si tàggat gi ñu tàggat bu nga xamante ne heure bu ñu génnee duñu am benn problème. waaw dafay mel ni sax laa la bëggoon laaj sa diggante ak as Assob euh, yow nga xam ne jigéen nga euh, Assob tey war a ñëw cees waroon euh, a xol ci góor ñi am fi asop les hommes tout ça là mais ñu jël sen confiance jox la ko yow mi jigen euh manam nga représenter leen tay fi asop au niveau de Thiès organiser organisation melni yobul yóbbu leen mairie de la ville de Thiès euh indi tous les tous tous les médias de Thiès ainsi de suite wa sa diggante ak asop nu mu demee ak euh, voilà loolu lan lan lan nga gis ci organisation bi dans la sam sa diggante ak ASFOP jappalé nañ la ci est de suite euh, noko ko gérer ba ba ba ba mëna euh, réaliser li yëpp. waaw ASFOP dafa nek benn station station bu am doolé la donc dafa bëri ay commission parce que commission sociale nga ci commission organisation ngi fi euh, commission bi fa ngi fi donc kenn ku ci nekk am nga war bo wara bay ci ce côté donc ñun ñëpp suñu bolo lépp lu ñu mëna a sumbale dañ koy daan waaw ah, merci beaucoup merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, dafa melni amna collation ñom euh, yi nga défar yépp ci walu déjeuner petit déjeuner s de sud yoy tout ça ça a été vraiment succulent neex na trop euh, fan nga jaar ba ba réaliser loolu yëpp da nga am partenaire ci walu bobu wala la da nga am sponsor parce que lépp wax nga ñu wax nañ ñu ni yow ya ko gérer sa bop yow ya organiser lépp loolu lañ ci mëna wax rapidement. waaw comme li la wax léegi parce que. comme euh, membre ASFOP bi dañu am ay commission donc commission gu nekk da nga si dugg sa wàll léegi soo dugalee lépp li nga bëgg a yor da nga koy am donc nit ay nit mënoo leen woo suba ba ngoon jot te doo leen jox ñu lekk doo leen jox ñu naan parce que li nga leen jàngal dugg seen bopp il faut que ñu am benn pause boo xam ne dinañ mën a récupérer pour li ñu leen dugg jàngal ñu mën a dugg seen mu mën a dugg seen bopp yi c'est normal. ok bon loolu nga ci jublu jàng bi dugg bu baax toog bu baax. Euh, ñu mën koo réaliser mën koo jëfee bu ñu wàccee ci terrain bi loolu nga si jubal moo tax nga bendal leen defal leen lu neex li yëpp ok léegi euh, kan nga kan ngay remercier en dernier ko bëgg a remercier. waaw particulièrement di nuyu bépp membre ASFOP di nuyu sama naataangoo yëpp su ma limee damay jom parce que di nuyu aussi suñu maire bi ak su suñu préfet bi ak suñu gouverneur bi parce que lii yëpp ñoom la parce que ñoom ñoo nekk njiitu secteur bi njiitu Thiès. ñoom suñ ñu ko da permettre woon kon lii du am parce que dañ ñu ko yombalal moo tax lii mën a am tey.